nañ ko def Bougane dafa war a tas émission yooyu yépp mu toog xam ne du walfu ci biir opposition bi nga xam ne état yi fi mas a jaar la moom la bëgg nag waaye du demee noonu man naa ko wax Sénégalais billaahi wallahi tàllaahi Sen TV li may tànte nii du nekk billaahi wallahi tàllaahi du nekk loolu du am nekk du nekk dafa mel ni walf barke alxuraan du nekk bëgg jàpp ne état bi moo koy opposé loolu du nekk te ñu ngi ciy xalaat ak yokkute. du loolu du dara ko ci yokkoo. da nga bëgg gis da nga gis. billaahi dañ cee wàññeeku waaye duñ ci yokku. da nga gis ne Bougane dafa bëgg a nekk. lii ma xoola te lii ma la wax nii. loolu insha allahu rabbi mooy am. gis nga nit ñi xam nga lu ñu war a def. xeexub jàmbur seen bi yoon gis nga ñun réew mi la waxal. waaye teg sa plateau télé di attaqué nit dem na tiwaawoon wengal mbaxana mi Sonko bi muy dem Touba daa watu ah Sonko de bi muy dox ci tapp bi benn tànk bi la ci teg ab journal dem day dund loolu mhm. ay plateau télé toog di ci débat naan avion bi bi mu déparé bi mu dugalee première bi si tët tët loolu moo tax finalement ñu leen di woowee kër ndof yi quoi léegi loolu bu dul ak ndox luy ak ndof yow ku war a wuti information dafay investigation nga toog naan premier ministre bi mbaxana mi daa weng dem na Tiwaawoon te Tiwaawoon jox ko ndigal mu sol mbaxana ñoom waa Tiwaawoon lañu xas sax Tiwaawoon jël seen kilifa teg ko ci kaw jël président Ousmane Sonko teg ko ci kaw mu am ndigalal sol mbaxana yow yow yow xoolal loolu teddaange jooju te pourtant booba porte parole bi ak seen kilifa yi ñu leen wër ñëpp a ngi sol ay mbaxana loolu mooy seen taarix mm-hmm. ni nga mënee dem Touba suñu sa mbaxana ñu nangul la ni nga mënee dem Tiwaawoon sol mbaxana ñu nangal ñu nangul la ko ku nekk ak nekk rek ak sa philosophe ku nekk ak ni ngay gisee mhm. sol mbaxana taxuta yëkkatiku suñu mbaxana taxuta wàcc na ñu nañu waggarante te bàyyi ñii ñu xeexal seen doom yi tey bugaan bu taxee may rayante man ak di saaga nit bugaan dooma ma nga mu teg fee mhm. di ko taalal ay kilimam wutal ko otoom dugal ko njàng mu baax yow sa bàyyi wuteelu la dara que Sonko nee na du kenn. kuy saaga sax bokkoo ci moom. Mm-hmm. mais Sonko dañ Sonko dañ koy saaga rek moo ko njabootam. xale bu ndaw ngay gis fi mu ne tey ñuy jabolise di jëlee ay wax di monter di kii Sonko Sonko warul taxaw sax naan ay du bu ma kenn vaar gis nga Sonko sax nañ ko vaar milliards milliards yi vaar mais vaar giñ koy vaar neex nañu xam nga ci lan ci dëgg bu la neexee nag mën naa wax ay wax juróomi at nga ñëw indi ko di dipparte waxam. loolu kuñ topp lu wër nañu da nga koo def même moo tax gis nga yoonu Sénégal gii billaahi maa ngi koy wax nit ñi dina liggéey te liggéey bi mu war a def njëkk internet bi da ci am wàll wu am solo puisque ndaw ñu koy seetaan dañuy màgg te ëllëg ñoo ñëw réew mi moo tax état dana ci dana ci taxaw. d'accord te ay mbir dana ci ñëw manipulation bi dafa doy. dafa doy te ñi koy def mu benn minorité bu ndaw la ki di déranger kenn la mooy président Ousmane Sonko te kooku yëfi yàlla Mmh. bien sûr alors euh, ah. yaakaar naa ni euh, sëriñ bi laataa may ñëw nag wax dëgg yàlla ci leen a yàlla jagleel. Mmh. ci wàllu seet nga xam ne euh, réew mi yëpp d' accord nañu ne sëriñ Mara mooy le marabout du peuple lu mu la wax nga gis ko ci wàllu seet. Mmh. mais damay taxaw nag wax dëgg yàlla ci lenn loo xamante ne bi yàgg nga seetal réew mi. mooy bu bu at mi di teru. da nga nekk at bees. da seetal réew mi wax li fi nar a xew. at mi waaw émission bi nag mooy émission bi nga xam ne moo njëkk ci at mi. Mhm. at mi at mi buñ ko waxee mooy atum jullit euh, na ma sénégalais yëpp bàyyi xel tuuti ma am lu ma leen baaxe may leen ko te yàlla tax. Mhm. ci at mi ren. Mhm. dinaa leen ci dimbali. lii mooy xeex bi. at mi dafa taxaw taxawaayu naari yu mooy safara. Hmm. waaw wow. waaye li muy taxawee safara safara ma waxaat la lu gën a neex hmm. mooy admiral atum xéewal la waaye dafa am lum tombe loo xam ne bariwul lu muy am at mi biñ ci duggee ñetteelu fan bi dafa tombeek bisub àllarba ba noppi di bis bu lëndëm ba noppi tombeek ñetti fan ci weer wi hmm. nga xam ne ñiy dox ci chiffre ak ci bis bis boobu bëri na lu bëri loo xam ne nga baal ma yàqu na ci moo tax saraxu at mi bokkul nag ak saraxu nit ki waaye saraxu at mi ren daf ci bokk ku ko man boo manee nga génne luñ naan sëq gu xonq wala mburu baax na vingt et un wala ñetti juróom-ñaar waaw vingt et un vingt et mburu wala sept mburu wala nga génne waaw daf ci baax mburu daf ci baax it ñeenti mbuusi soow boo ko mënee bu dee góor a nga jox ko jigéen bu dee jigéen nga jox ko góor baax na lool ci at bokkut ak nit nga xam ne dafa dafa seetlu ba war a génne saraxu at mi ndax ñi at mi ñu ngi ciy doog a am tey bu ma juumul ñetti fan ko ma juróom ñu ngi ko ciy doog a am. Mhm. te am at bu teroo nit ki nga xam ne dafa nekk ci at mi dafa war a def ay saraxam bu fekkee daf cee bëgg ubbeeku. xam nga lii ma lay wax ci ndorteelu at mi ñu bari xamuñu ko. àllarba bii passé ñu bari waruñu woon a sangu. dafa bokk nag ci ay tegtal. Mhm. waruñu woon a tukki waruñoo tàmbali waruñu woon a daloo lu bees. alarba bi passé. waaw moo nekkoon alarba kare. de non damay laajte rek sëñ xam nga man maa ngi ñëw ci maa ngi ñëw ci ci ci ñetti fan. wu tombeek ay batxu yu may feeñal di ko toj. ci at mu yees mi di ñetti fan ñu dal ci àllarba ji ba noppi at mi nekk naar yu ma ci leeral ay mbir mu ñëw di ma indil àllarbay kare tegal ma man daal di jënd nag. loolu mooy gën a kawe àllarba damaa war a kawe amu ci. daf ci am ci weeru tamxarit bi daf ci am ay bés yoo xam ne day raar ci atum jullit yi ci ak tombe d'accord dafa am bés yoo xam ne bu ñëwee dañ ciy profité wax ci nit ñi te fi ne atum jullit yi euh, biñ ne bërët am na basmala yu ñuy liggéey yoo xam ne nit ki bu ko defee ci ndiggam moo xam nga sangu ci moo xam nga takk ko at moomu dañ naan la lii moom suñ borom dala ciy musal nga baal ma dee ci wàllum sokk mm-hmm. wala ak kumte xam nga luy kumte mooy umu waaw umu ak ñàkk maanaam ak rafle mag ñi noonu lañ ko daan waxee wala nga baal ma ak beeñ nga xam ne doo mën a am maanaam xeeti ñàkk yooyu léegi nag at mi bu teroo nga am ay tegtal yoo def def say sarax suñ boroom dala ci musal tam réew nag boo fa dëkkee ñiy jàngi mécanicien di dimbali oto yi paan ñiy jàng tailleur di dimbali ñi bëgg a solo ñiy jàng mason di dimbali ñi bëgg a tabax yow nga jànge woon xam-xam mm-hmm. wax dëgg yàlla dimbali nit ñi ci seeni sarax dimbali nit ñi ci seenu yaram suñ borom man leen defal jàmm d'accord léegi loolu dafay aju ci wàllu ñaan wala dafay aaju ci wàllu sarax jusque pour at mi yëpp luy ñaan déedéet sarax rek la sarax boobu boo ko génnee ci at mi mm-hmm. doo ko defaat boo seetloo nii nii loolu yombul tey jii bu ma la seetaloon na la mën naa laa génneel sarax boo xam ne wóor na ma ne ci at mi boo ko defee suñ borom dana defal jàmm loolu moom day xam nga loolu yombul. kon loolu bëriwul koy wax. at bi yëpp di nga mucc quoi. da nga waaw waaw da mucc ba pare mos. Ah. xam nga mucc rek te mos baaxul. te yii yëpp sëñ bi dafay am mooy li ma la wax ku ci nekk ak li la yàlla nattoo nga koy def man seet euh, moo tax Ibrahima Traoré baal ma dama lay siif fokk ma ñëw ci mi nekk Burkina. Ibrahima Traoré capitaine capitaine Traoré. damaa gis ñu dóor ko balu fetal fan yu néew bu soobee yàlla am na lu may bëgg sax dem ba ca réewam ma te danaa def yi mbir ba gis ko te den hmm. waaw maa ko gis man ñu jël nguur gi ci loxoom ba noppi dóor ko balu fetal allahu akbar la ko wax de te danaa def yi pexe te dinaa fa dem maa ko gis wallahi kenn man jël laa ko gis te li may wax nii moo am mu mel ni ku ñuy coup d'état da da te kooku damay gis mbiri Sonko ci moom moo tax ma am volonté wu bëgg koo jàppale te yàlla tax lu ma ci yàlla may nag ma jël. mais di nga dem man sama mbir day génn réew mi te loolu force la dinaa dem Burkina man te dinaa ko jàppale ji ndax damaa gis ñu koy niiwal doole. du ma ne nag bu ma ko jàppalee day am ndam bu ma ne it dinaa ko jàppale du am ndam. waaye boobaa du ump Sénégalais yi. ne dem naa ca réew ma te danaa ca dugal sama loxo jox naa ko Sénégalais yi exclusivité nga ne mais daal. capitaine Traoré mais daal di nga ko jàppale. Mm, euh, waaw ci kattanug yàlla. maa ngi koy bëgg te danaa tàbbi ci sa réew ma moo tax euh, man jàmbaar laa bëgg te danaa gis ci moom ak jàmbaar. moo tax saay-saay si euh, waaw te sama vidéo yi may def nii dana ci jot bu soobee yàlla. baax na <laughs> alors mi ngi noonu waa ah, euh, Serigne Mara c'est vrai tey. Mhm. bu ñu waxee wàllu seet. Uh-huh. amatuloo looy prouver. Mhm. amatuloo looy wan Sénégalais yi. Mhm. parce que seet nga lépp gis nga lépp mais bu ñu tollee fii. Ah. war nga ñoo mën a waxaat encore ci avenir u Sénégal. lan nga ci gisaat. Mm-hmm. ci jamono yi nga xamante ne bi def nañu cent jours ba pare. mais lan nga gisaat ci ëllëg bi. waaw xam nga ëllëgu Sénégal dafa nekk loo xam ne euh, ndaw ji war nañoo gën a dalalaat seen xel ci kii nga xam ne.